réew yi am nañ butéel yu xamante ñooy nekk seen butéel yu mujj yi am na butéel yu xamante moo nekk seen butéel yu mujj waaw ndax da ngay dégg ñu ne pare naa nga dëkk ba si yàgg nga ma beneen butéel yu bëri ñëwaat ci ñu daldi raayo sa Thiès euh, rëg rëg pare naa rëg rëg ñi nga xamante accompagné woon seen sax seen la ginnaaw rëg rëg ñi nga xamante ñoo ko accompagné woon sax ñoom ñëpp nañ moom kese képp dong ak ak arbitre rëg rëg moo nekk ci ci géew ah ñu ngi koy vérifier Reug Reug ñu ngi koy làmb Reug Reug ñu xool ndax am na lu koy gaañ li gaañ Sa Thiès loolu mooy dernier réglage arbitre bi pour am sañ-sañ da nga ñëw xool mbër mi nga seet ko ndax am lu nekk lu koy gaañ mu dañ ko bu fekkee awee yi dal di ko dagga luy gaañ mbër mi dañ koy vérifier Sa Thiès vérifier ko si Reug Reug mu nekk combat boo xamante ni ay waay sambat oh stade bi commencé na waay stade bi commencé na waay le grand combat entre Reug Reug ak Sa

stade baa ngi def animation moment bi nag moment bu fort la ndax Sa Thiès ak Reug rek ak arbitre rek ñu nekk ci géew gi buñ toll ni kenn kenn nekkatu ci géew gi ku dul mbër mi ak moromu mbërëm bi ku dul arbitre di joxe verdict ku daan ak ku daanuwul bu ko defee mbokk yi ñu xaar instant euh, exclusivité ci public SN comme waxal leen ko rek mbokk yi ñu ngi mel ni ñu ngi ñëw ci biir stade bi waaw waaw public SN ci stade bi. ndaxte lépp li nga xamante ni mooy suñu interno yi nekk ci diaspora nekk ci national ah wala ñu mën a suivre rek ci Europe dégg nga leen di jox li nga xamante ni moo xew ci instant oh oh bu nekk ay ay affaire yoo xamante ni comme 31 décembre ah. bi day yëngatu ah di fàttaliku at bu kii ay ay waay waay ay waay ah Sénégal pays de la teranga Sénégal dëkku jàmm la dëkku teranga la ah ñëpp nga tekk tekkaaral pour le moment nii lu doon jaay lu waay du jaay tey la koy wane open de presse yi ñu ngi suñu gannaaw face la neex mu suñu gannaaw ah arbitre central bi génn nañ benn arbitre rek benn arbitre rek moo des mooy arbitre central bi moo nekk ci géew nekk diggante Reug-Reug ak Sa Thiès diggante reug ak Sa Thiès léegi dañ di signalé rek sifflé rek ñi bëre ñi sifflé rek ñi bëre boobaa ñu xam kan moo gagné ñu xam kan mooy le champion moment bi sama yaram bi daw na waaye di ñaanal ñoom ñaar ñëpp jàmm jàmm ci Sénégal jàmm ci Sénégal oh oh. ndeysaan bi neex na waay Alpha neex na waay eh waay bon ah ma ne ah li lii neex na sama sama sama sama auditeurs yi ak téléspectateurs yi ñuy suivre maa ngi leen di bëggee di leen kontaanee bu ko defee jox leen seen kër rek nag ngeen am ci publicité saa su nekk nag ñu jox leen combat bi noonu la demee pour le moment nii man maa njëkk a joxe maa leen njëkk a wax daan ma publicité seen mooy daan maa leen ko njëkk a wax ma publicité Euh, information bi xoy xoy fii lay jógee joge ko defee mbokk yi ngeen patienté entre diggante actuellement ma leen di wax ni tey mooy dimanche waaw di cinq mars de mille vingt trois bu ko kenn fàtte diggante Reug Reug ak Sa Thiès ah arbitre yaa ci biir géew bi dara amagul euh, liwto amagul a amagul ah xoolante amagul euh, yooyu yëpp ah muy fexe lamb yu xamante ni dëgg yàlla sama yaram daw na ay waay sama yaram daw na ay waay sama yaram kono waay sama yaram daw na sama yaram na ay fii waay fii ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan oh waay waay le grand combat waay du li nga xamante Reug Reug dafa am ay mbokk am xarit am ay am euh, mbooloo mu bëri bu topp ñëw ndeysaan li ko am na mu di ko accompagner fii daw yaram ay mbokk yi dimanche dimanche 5 mars 2023 ah léegi tey mu démarré léegi mu démarré arbitre bi woo na Sa Thiès woo Reug Reug ñuy waxtaan mu leen di xamal règlement bi xamal leen li ngeen war a def ak li ñuy wax baa ngi wax ak Reug Reug arbitre baa ngi wax ak Sa Thiès ah ñoom ñaar leen di dégloo xam naa yàgg nañ ko déglu ndax te yàgg nañ def ci làmb waaye da leen rappelé rek ndax rappelé ah ba mel ni pare na arbitre pare na conseil yi mu doon defar diggante Reug Reug ak Sa Thiès sànni na benn nen saj na nen bi mbokk yi arbitre bi yëkkati loxo bi yëkkati waat na ko wéy sama ndey yëkkati waat na ko yëkkati waat na ko na ko Reug Reug nga na ko Sa Thiès pare nga Sa Thiès na waaw wéy c'est parti dimanche 5 mars 2023 entre Reug Reug ak Sa Thiès ñooy bëre ci géegu Reug Reug mu ngi dal di def ay loxoom wéy sama ndey mu ngi koy léeg Reug nga xool Sa Thiès da ngi dal di moom it toog mu taxaw kenn ko benn kenn defagul benn ndeysaan xoolal ma rek Reug Reug ndeysaan kenn ku nekk yaa ngi fa nga taxaw nga taxaw kenn ku nekk fa nga taxaw nga taxaw kenn ku nekk fa nga taxaw rek nga taxaw ah liwto bi kenn ku ne yaa ngi liwto fii nag peut-être Reug Reug gi déplacé yu na Reug Reug yëngatu na yëngal na tànk bi Sa Thiès ñëwagul Sa Thiès a ngi dal di liim Sa Thiès a ngi liim Sa Thiès a ngi liim Sa Thiès a ngi mel ni luy puus mi ngi puus Sathies ngi puus Sathies ngi puus Sathies ngi puus euh, seen diggante na maintenant trois mètres à peu près trois mètres moo nekk seen diggante léegi tey moo deux mètres wala ay ay waay Reug Reug Sathies ay waay Reug Reug Sathies ay waay oh le ak Sa Thiès le ak Sa Thiès ñu ngi bëre ñu ngi dóor ñu ngi dóorante Sa Thiès dañ koy dóor Sa Thiès dañ koy dóor Sa Thiès dañ koy dóor Sa Thiès dañ koy dóor Reug-Reug daan na Sa Thiès ba toog ci kawam Reug-Reug daan na Sa Thiès ba toog ci kawam Reug-Reug daan na Sa Thiès ba toog ci kawam Thank you. elmat daw na waaye rëg-rëg daan na Sa Thiès jël bu doy waar jël bu yéeme jël bu gaaw jël bu doy waar ni ko gars doon waxee seetaan ngeen ko ak ñun gis ngeen ni rëg-rëg def